beneen jàmbat bi mooy équité équité dans la libre circulation des des des candidats yéen seen candidat euh, voilà il a l'excuse d'être premier ministre il a le droit de sillonner le territoire euh, partout mais euh, même vos responsables qui font des collectifs de parrainage euh, kenn terewu leen dara kenn inquiété wu leen euh, ñu ngi organiser seen i sargal ñu ngi organiser seen i cérémonie de dépôt euh, de fiche de parrainage et au même moment les nu mu tudd la circulation des opposants est obstruée euh, def nañ ko Gakou def nañ ko capitaine Touré euh, def nañ ko Abdourahmane Diouf euh, Abdourahmane xam nga nag def ci am candidat yoo xam ne ñoom ñoo ah. cherché buzz bi. nañu cherché buzz. xam nga dem ci dëkk bu ndaw yow amoo sa am sa parrainage wóorul nga def benn cortège. di déranger ah yéen ngeen di def cortège. non déglu rek ma wax la man di def cortège pour déranger nit ñi di provoquer les forces de l'ordre ñu laaj la sa autorisation. ah ñoo koy créé sciemment nga am na ci candidat yoo xam ñoo koy tamit. mais lu tax ñu leen di laaj autorisation ils ont le droit de. non d'aller à la rencontre des Sénégalais. non tu le droit yeewu créer cortège créer caravane ci dëkk te déclaré woo ko ba ñu ne la mën nga ko def am nga droit boobu. mais mais mais def porte à porte la doon def. mais y' a de euh, euh, préfet bi ñëw taxaw gaw ma loolu. y' a de candidats ñoo fi nekk di def parrainage man déggee jawaay wax naa la ko sànq. Aly Ngouille Ndiaye mu ngi def foofu ay parrainage mais kenn bloqué wu ko ñëpp a ngi def seen parrainage ñii ngi def seen sargal seen meeting kenn terewu leen waaye su fekkee nag yow da nga manqué buzz maanaam da nga manqué coow bu la topp nga bëgg ko da ngay dem ci benn localité créer fa cortège dem jaar buntu gendarmerie buntu police déranger nit ñi am ko <laughs> pour presse bi mun ko wax j'ai pas dit que Malick Gakou waxuma ci suma grand grand la boolewuma ko ci dee mais euh, parfois. eh Gakou nee na il va vous très mal. ah waaw nee na il va vous faire très mal. waaw xam nga làmb ji moom boo ciy dem da ngay bàkku toujours waaye bon dinañ xool rek. lu fay ah,